نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه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 samedi bu nekk ci waxtu wi diggante timis ak gee dana am ba yàlla di fi jëlee mbas mi jàkk yi mën a nekkaat seeni activité incha allah tey nag noo ngi ñëw ci suuratul fatiha muy fatihatul kitab li sabab ñu ñëw ci suuratul fatiha tey dafa am mbokk yu bari ñu ñu koy faral di laaj léeg-léeg buñ leen waxee nañu dellu ci ojo yi tafsir yu njëkk yi ñu bari dañ naan gisuñu ko tey jii ñu ngi waroon jël suuratu Saff waaye ñu gël cay nag tafsir xaasa suuratu Fatiha incha allah ba samdi bii di ñëw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 alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rrahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraata almustaqiim siraata alladiina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا yàlla yàlla barkeel leen barkeelal ñépp mbooleem taalibe yi ak daara ji ak képp koo xam ne mi ngi ànd ak ñun di déglu téere yàlla bi da ngeen saar wi mu jàng muy suuratul fatiha suuratul fatiha makkiya la makka la wàcce li mu def ci ay baat def na ñaar fukki baat ak juróom-ñeent muy vingt-neuf li mu def ci ay xaraf cent trente-neuf xaraf la muy téeméeri xaraf ak fanweer ak juróom-ñeent saar wi tuddee nañ ko faatiha te faatiha mooy ak ubbee ndax moom lañuy ñuy ubbee jàng ci julli saar wi dinañ ko woowee ummul kitaab muy ndeyu téere bii di alquran waaye mën nga ni ndeyu téere yépp la loolu aljumhur yaxal nañu ko mbokk yi sax na wér na ci riwaaya bu limaamu tirmidi mu jëlee ci abu hurayrata radiyallahu anhu wa ardaah mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin ummul qur'an wa ummul kitaab wa sab'ul masaani wal quraan al azim ne yonent bi nee na saar wii di alhamdulilahi rabbil alamin te mooy fatiha nee na mooy ummul quraan mooy ndeyu al quraan waaye mooy ummul kitaab mooy ndeyu téere ba pare di asabul masaani mooy juróom ñaar yi ñu ñaaral mooy sabul masaani juróom ñaar yi ñu ñaaral waaye ba tey alquran al azim mooy alquran lépp li tàmbalee baqara ba naasi lépp fatihatul kitaab tënk na ko am na ñu koy woowee suuratu salaa muy faatihatul kitaab dinañ ko woowee saaru julli lan moo tax borom bi taala wa tabaarak ne qasamtu salaata bayni wa bayna abdi nisfayn fa ida qaala alabdu alhamdulillahi rabbil alamin qaala allahu hamadani abdi borom bi ne ci xadiisul qudusi ne dama séddale julli sama digganteeg sama jaam bi ci ñaari xaaj sama jaam nag saa bu ñaanee rekk ma may ko mu ne bu jaam bi ne alhamdulillahi rabbil alamin borom bi ne sama jaam dey sant na ma kon fatiha charte la ci biir julli faatiha dinañ ko tuddee suuratu shifaa suuratu shifaa mooy saar biy faj saar biy wéral mooy faatihatul kitaab dinañ ko tuddee suuratu shifaa bokk na ci assahabatu ridwanullahi alayhim daan tuddee saar bi suuratu ruqya mooy saaru mocc fatihatul kitab ndeke saar wuy mocc la abu saidin al xudri ne mocc nañ ci benn waay benn boroom dëkk ci seen jamono ne dañoo àndoon ñoom saxaaba yi di dox ba ñëw ci benn dëkk fekk boroom dëkk bi jaan màtt ko bi ko jaan màttee muy bëgg a dee gaa yi jéem-jéem muñuñu dara ñu séen leen ñoom ñu toog ñu ne leen borom dëkk bi day jaan koo màtt mi ngi bëgg a dee ndax yoru leen luy mocc kenn ci ñoom ne aha <coughs> ñëw tiim ko jàngal ko faatiha waa ji tisséwal yi daal di wér ñu fay leen ay gàtt léegi bi ñu ñëwee wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki moccoon yonent bi ne ko wa maa yudrika annaha ruqya lan moo la xabaar ne saar wii ndeke day mocc kon bépp feebar fatihatul kitaab da koy wéral ndax alquran lépp fiihi shifaun linnaas dinañ ko tuddee alwaaqiya saar la boo xamante ni day fekk di fegal nit ay jafe-jafe ak fitna boroom xam-xam yi ñu ne faatiha wàcc na ñaari yoon wàcc na ca makka waaye wàcc na ca madina ñu ne loolu mooy walaqad aataynaaka sab'an min almasaani walquraan aladim borom bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa jox nañ la juróom ñaar yu ñu ñaaral ak alquran kon juróom ñaar ñi ñu ñaaral mooy fatihatul kitaab am nañu nettali loolu saar wi xam ngeen ni juróom ñaari aaya la def te loolu amul benn wuute ñëw na ci ngëneelu fatihatal kitaab saar wu bëri ngëneel la Xafs ibn Aasim jëlee na ci abi Saïd ibn Mualla radiyallahu anhu mu ne kuntu usalli fa daani rasulullah fa lam ujibhu hatta sallaytu wa ataytuh fa qaal ma manaaka an taatiyani qaala qultu ya rasulallah inni kuntu usalli qaala sallallahu alayhi wa sallam alam yaqul illah yaa ayyuha alladina aamanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida dacaakum lima yuxyikum summa qaal sallallahu alayhi wa sallam la ucallimannaka aczama suratin fi lquran qabla an taxruja min almasjid qaala fa axada biyadi falamma araada an yaxruja min almasjid qultu ya rasula allah innaka qulta la uallimannaka acdama suratin fi lquran qaala naam alhamdulilahi rabbil alamin mu ne said ibn almualla wala abi said ibn almualla ne dama doon julli benn bis ci masjidu rasul ne bi may julli yonent bi sallallahu alayhi wa woo ma maa ngi ci biir julli yonent bi wooma ne wuyuwuma yonent bi continuer julli gi bi ma jullee ba pare nag ma sëlmal ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko lan moo tee nga wuy si ma bi ma lay woo bi mu ko defee Abu Saïd ne ko dama doon julli moo tax mënuma la woon a wuyu yonent bi ne ko xanaa yàlla waxul ci alquran ne ay yéen ñi gëm yàlla wuyu leen yàlla ak yonentam bu ñu leen woowee ci luñ leen di dundal istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuhyikum bi yonent bi waxee loolu ba pare ne dinaa la xamal aw saar wu màgg ci alquran balaa ngaa génn jàkka ji dinaa la xamal ab saar bu màgg ci alquran balaa ngaa génn jàkka ji ne yonent bi jàpp sama loxo sallallahu alayhi wa sallam ne bi mu demee bay génn ma ko ah yonent bi yow de noon nga ma di nga ma wax saar wi gën a màgg ci alquran yonent bi ne ko waaw mooy alhamdulillahi rabbil alamin mooy fatiha ne ko hiya sab'ul masaani wal quran al azim allazi utiitu nee na fatiha mooy juróom-ñaar yi ñu ñaaral te mooy saar wi nga xamante ni jox nañu ma ko kon day wane ni mbokk yi saar wi ndeke saar wu màgg waaye mbokk yi saar wi mooy julli saar wi mooy julli ndax xam nga ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa salaata liman lam yaqra bi faatihatil kitaab yonent bi nee na amul julli koo xam ne bi muy julli jàngul faatiha kon julli rakaa yépp dañ ciy jàng faatiha su dee ñeenti rakaa dañ ciy jàng faatiha su dee ñetti rakaa dañ ciy jàng faatiha su ñaari rakaa dañ ciy jàng faatiha kon ndeke saar wii ndeke yoo julli du mat lu dul ñu jàng ko ci biir julli audu billahi min alsheytani irrajim loolu mooy musluwaay jullit balaa def dara na muslu yàlla ci sheytaan alquran ne xuzil afwa wa'mur bil urf wa arid an il jahilin wa imma yanzaghannaka min ash-shaytaani nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul alim borom bi nee a del jéggale waaye del def njekk naga nga yu ñi xamul nañu la saaga nañu la lor waaye dummoo yu leen waaye tegal la ja nag ne la imma yanzaghannaka min ash-shaytaani nazghun fasta'iz billah yow jullit bi bés bu la seytaane njoofee ak njoof wala mu laal la ak laal nanga nga muslu yàlla mooy bis boo demee ba xalaat lu bon wala nga dem ba nar a def lu bon wala sax nga def lu bon nee na fastaiz billah muslul yàlla nan ngay musloo yàlla ndax yàlla aji dégg la kon ndeke musluwaay lu jaadu la ndax borom bi taala wa daf ñu ko wax ci alquran ne wa qul rabbi audu bika min hamadati shayatin wa audu bika rabbi an yahdurun yow jullit bi waxal ne yow yàlla maa ngi muslu ci yow ci ay cofay seytaane waaye maa ngi muslu ñu teewal ma ñu teewal ma mooy ay seytaane dugguma ba may cadd caddi ay seytaane dugguma ba may crise ay seytaane dugguma ba dootuma xam ci lu ma nekk maanaam ma nar a nekk ku dof kon jullit bi ndeke buy muslu yàlla ci seytaane dana ci mucc borom bi woo nañu ñun ñépp ne yaa bani aadam laa yaftinannakum ash-shaytaanu kama axraja abawaykum min aljanna ey yéen doomi aadama yi communiqué la bu borom bi wax nee na bu leen seytaane fitnaal mukk mukk mukk mukk bu leen ko nangu mu fitnaal leen comme ni mu génnee seen ndey ak seen baay ajjana muy aadama yonte yàlla aadama mi ngi woon ajjana kan moo ko fa génne seytaan soxnaam di hawa mi ngi woon ajjana kan moo ko fa génne seytaan kon yàlla jox nañu communiqué yaa bani aadama laa yaftinannakum sheytaanu kama axraja abawaykum min aljanna bu leen nangu seytaane yàqal leen kon yow nit ki ci sa biir sëy bu nangu seytaane yàq sa diggante ak sa jabar yéen ñaar ñiy ànd bu leen nangu seytaane taal seen diggante yéen ñi bokk bu leen nangu seytaane taal seen diggante wala bu ci seytaane mu ne kenn na kenn taxaw comprendre situation seytaane waaye ngalla waaye bul ni def na mën ko def bul ni mooma maa ko dàq kon loolu la borom bi di ñu wax ndax kat seytaane dafa waataloon yàlla ne ko fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain seytaane noon na yàlla maa ngi gëñ ci sa màgg danaa leen bewloo ñoom ñépp ne ko illaa ibadaka minhumul muxlasin ah xanaa sa jaam yi sellal yàlla nañu yàlla def mbokk yi ñuy nekk ñuy sellal kon borom bi nee na booy jàng alquran muslul yàlla balaa nga koo jàng na nga muslu yàlla fa ida qara'ta fa ida qara'ta alqurana fasta'iz billahi min alsheytani irrajim waay waay boo jàngee alquran muslul yàlla ci seytaane booy jàng alquran muslul yàlla ci seytaane innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun borom bi nee na seytaane amul pouvoir ci ñi gëm tey wéeru ci yàlla ndeke kon boo bëggee mucc ci yàlla ñaari muslaay nga am bi ci jiitu moom mooy alladina amanu nga bokk ci ñi gëm wa ala rabbihim yatawakkaluun nga bokk ci ñi wéeru ci yàlla jamono boo gëmee yàlla dëgg-dëgg gëm te wéeru ci yàlla seytaane mënul ci yow dara kon nag jamono bu seytaane mënul ci yow dara rek mooy am na lu des sa digganteeg sa borom mooy sa digganteeg sa borom am na lu ci lëndëm ah, am na loo ci lëndëmal ngeen baal ma am na loo xamante ne toppatoo woo ko ndax ñaari charte yii la la borom bi tegal fa ida qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi min alsheytani irrajim innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun borom bi nee na seytaane amul pouvoir ci ñi gëm amu kon jamono bu nit defee jëfi seytaane mooy ndeke dafa bàyyi charte bi ko sàmp beneen biit it nag mooy bu wéeroo ci yàlla dana mucc kon ndeke seytaane ci kan la am doone borom bi nee na innama sultaanuhu ala alladina yatawallawna walladina hum bihi mushrikuun nee na ñaar ñii moom seytaane mën na ci ñoom dara ñu ne borom bi ña kan kan la mu ne alladina yatawallawnahu ñi méngoog seytaane <laughs> seytaane mën na leen mooy ñi nga xamante ni dañuy jaamu xërëm ñii bokkaaleek yàlla ñii def bàkkaar ñii dem ci ay xàmb ñii takk gàllaat ñii tuur ñooñu mooy ala alladina yatawallawnahu ñoom ñoo dem ci seytaane ñoo ñëw ci garab gi sotti ci meew ñoo ñëw jël ay dammitiku samp ko ñoom ñoo woo bàyyi jinne ñoo woo jinne Muusa ñoo woo jinne Maryam kon ñooñu mooy allazina yatawallawnahum ñooñu moom seytaan da leen di moom mu ne wallazina hum bihi mushrikuun ak ña nga xamante ne dañuy bokkaale bokkaale kat seytaane da koy mën fu mu toll mbokk yi ndeke kon muslu ci yàlla lu jaadu la muslu ci yàlla ngir mucc ci seytaane kon loolu moom mooy audu billahi min asheytaani rajim da nga koy def ci biir julli waaye danga koy def ci gannaaw julli dañ ko ciy def ndax muslu yàlla ci seytaane la bi sallallahu alayhi wa sallam duaaul istiftaax jàngal nañu ko mooy boo kàbbaree ci julli ñaan bi nga xam ni moom ngay ubbee julli gi yonent bi daan na wax ni subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka smuka wa taala jadduk wa laa ilaha gayruk su waxee loolu ba pare nag ne audu billahi samil alim min alsheytani irrajim bismillahi rahmani rahim loolu lépp ndànk la koy wax doog ni alhamdulillahi rabbil alamin kon ci biir julli da ngay muslu yàlla boo defee duaaul istiftah ba pare yonent bi daana wax ni allahu akbar kabira daan na ko def ñetti yoon ne alhamdulillahi kasira ñetti yoon subhaanallahi bukratan wa asila ñetti yoon ne allahumma inni audu bika min alcheytan min hamdihi wa nafsihi wa nafxi doog a jàng fatihatul kitab loolu mooy muslu yàlla ci cheytaan mbokk yi bopp saar waa ngi tàmbalee bismillahi <coughs> bismillah mooy maa ngi tàmbalee sama jëf jii may jëf walla <coughs> wax jii may wax walla lii ma namm maa ngi ko bëgg a jëfee tàmbalee ko ci turu yàlla mooy bismillaahi rahmaani rahiim jullit lépp lu muy def nay wax bismillah suy génn këram da wax bismillah suy dugg këram na wax bismillah suy tëdd ci lalam walla muy toog ci chaise na wax bismillah suy togg bu dee jigéen na wax bismillah suy dugg ci wanag suy génn suy dugg oto lu muy def dafa war a wax bismillah bismillah ndax kat jullit pour li muy def barkeel am mucc da caa war a jiital turu yàlla taala wa tabaarak kon bismillah mooy maa ngi tàmbalee ci turu yàlla ci lii ma nar a jëf kon lépp looy def danga ca war a tàmbalee bismillah ndax kat bismillah mooy départu lépp même gaalu yonent yàlla nuux ga nga xam ni amul woon moteur amul woon lu ñu joowe yonent yàlla nuux jamono bi nga xamee ne nitam ñi weddi nañ ko ba yàlla indi mbugalam te muy tuufaan ba gaal gi nuux yoroon ña ca duggoon lan la nuux taalee gaal ga ndax dafa yoroon joowu déedéet dafa amoon moteur déedéet waaye borom bi def ko ne bismillahi majriha wa musaha ne ko gaal gi bismillah moo koy dawloo moo koy taxawal soo ne bismillah rek gaal gi départ kon chauffeur bi yow mi dugg sa oto balaa ngaa def dara neel bismillah soo taalee neel bismillah kon gis nga ko yonte yàlla nuux gaalam daw na te yorul moteur amul joowukaay lan moo tax gëm gi mu gëm bismillah moo ko may loolu ak kàttanu borom bi kon bismillahi majriha wa mursaha mu ne kon lépp looy def yow nit tàmbalee ko ci bismillah soo dee bind soo dee raxas soo dee fóot yow jigéen lépp looy def waay tàmbalee ko ci turu yàlla yàlla moomu nag nga ni arrahman mooy borom yërmande gi nga xam ni gu mat sëkk la dajale mbindeef yépp muy arrahman ci lay xéewalee jaamam ñi ci la leen di noppalee ci la leen di tegee ay nattoom kon arrahman tur la ci turu yàlla yi arrahman allama alquran borom bi nee na mooy rahman ndax moo jàngale alquran kon arrahmaan yi <clears throat> yàlla moomu nga xam ni mooy borom yërmande gu mat gi ndax yërmandeem moo tax yéefar di dund fii ci kaw suuf yërmandeem moo tax bokkaalekat bi am li mu bëgg yërmandeem moo tax yàlla li muy def seetu ca ku ko gëm ak ku ko gëmul boo seetee ñi gën a weddi yàlla la yàlla gën a wërsëgal kon yërmandeem googu dana tekki maanu encore ndax loolaa tax ñi muy jox xéewal ñépp da koy jox kon rahmaan ñépp ko bokk arrahim mu yërmande boo xam ne dafa am équipe bu ko jagoo arrahmaan ci àdduna jullit yéeg yéefar yi ñoo ko bokk ci lépp lu ñu war a am danañ ko am ndax yàlla wasiat rahmatuhu kulla shay yërmandeem matale na bépp mbir wa ma bikum min nicmatin fa min allah xéewal bu ngeen am ci yàlla la bàyyi ko wa ma min daabatin fi l illa ala allahi yàlla nee na luy dox ci kaw suuf biir géej lépp yàlla nee na moo yore wërsëgam wërsëg wa indahu mafatihul gayb laa yaalamuha illa hu yàlla moo yore caabi ndam bi way fàddu yi lahu maqalidu samawat yàlla moo yore caabi asamaan ak kaw suuf lépp yàllaa ko yore kon rahmaan googu dafa yaatu ci la baahima bi di lekkee jën bi ci biir géej ci lay lekkee sax bi ci biir suuf ci lay lekkee picc ba ca kaw asamaan ci lay lekke looloo tax picc amul métier amut liggéey embauché ko defuñ ko lenn yonent bi dañu jox leçon ñu war koo jàngee ci picc ñun jullit ñi bu ñu sàgganee ba picc taneñu mooy sàggan nañ lan moo ñuy yóbbu ci sàggan mooy ñàkk a wéeru ci yàlla moo tax yonent bi ne saxaaba yi law tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr taxdu ximaasa wa taruuhu bitaana nee na bu ngeen wéeru woon ci yàlla dëgg-dëgg wéeru yàlla dana leen wërsëgal comme ni muy wërsëgalee picc nee na picc buy xëy jóge ci tàggam di dem day xiif fajar lay jóg du biddanti du am lu mu lekk waaye day dem nee na bu demee balaa ngoon buy ñëw dana lekk lekka lekk ba desal ci jox bi indil ko ay doomam la rasaxakum kama yarzuqu tayr nee na taxdu ximaasa day xëy xiif wa taruhu bitaana kon yow nit nag boo fandee tiit jaaxle dangaa wéerul ci yàlla waaye ku wéeru ci yàlla warul tiit wolof nee na bukki day wax ni su xiifee day kontaan ñu ne ko lan moo tax nga kontaan mun ndax xam naa ne ginnaaw xiif suura ci topp su suuree day mer ñu ne ko lan moo tax nga mer mu ne xam naa ne ginnaaw suur xiifa ciy topp kon nit il faut ñu am ak tawakkulu ala ak tawakkul nag bokkul ak tawaakul il faut ñuy wéeru ci yàlla yow jeune bi gëmal lu mel noonu yow miy dem bitim réew uti alal bul jàpp ne alal Europe la nekk bul jàpp ne États-Unis la nekk bul jàpp ne Afrique la nekk alal ci loxoy yàlla la nekk wërsëg maa indakum yanfad wa maa inda allahi baaq yàlla nee na lu ngeen am day jeex man lu ma am du jeex kon loolu wërsëg boobu yàlla nga koy bàyyee ut ko utin bu rafet fi la ko yàllay joxe dana la xëcc ba nga ñëw foo waaye li li ma gis nii yàlla Espagne la nekk sa àdduna yëpp mooy naa dem Espagne danga jàpp ne wërsëgu yàlla ay états la nekk Canada génn sonn wëri dem ba pare am benn jullit bu nekk fii moom gëm ni wërsëg yàllaa koy joxe muy yëngatu lan lay yëngatu ay xottu butéel lay for di raxas ay pot xottu poto ay dàll yu yàqu lay raxas dajale sànni ñëw xëy toog palaasam caayam dagg mu toog nii gis nga waa koñ bi ñu jëndoon potu chocolat yi seeni doom ndékkee ko ba pare ñu sànni xotti pot yi pot yooyu la dajale bis ñëw ka jëndoon chocolat ba muumoon ko soxla na pot amul nu muy def mu ne doom ji demal ca mbaar ba bële bàyyi jaw jaay la benn pot nga ñu fekk bàyyi jaw moom mi ngi toog wala booy jaw ñu ko sam papa neen nga jaay ko pot mu ne la pot bi deux cent franc lay jaar nga jox ko deux cent keneen noonu keneen noonu keneen noonu gis nga xale bu góor bi sonnoon ba ni moom Europe lay amee su demee nekk Europe ay fan day toog ba jaag mu ne séet tit tit man li ma foogoon du ah. man dama foogoon ni daal booy ak si Europe rek am ndeysaan am dafa benn waay boo xam ci dëkku àll yi la jógee dañ koy joxe misaal benn mbokk séeréer dafa moom di foog na ni ku ñëw da ngay for xaalis ndax xaritam bi fi nekkoon di liggéey ñëw di ko mbalak mu ne ko booy noo def ba am ne ko non booy Dakar saa bu xëyee da ngay for di denc ba ñëw jot nga ñëw waa oh, kon de ma séeréer yi baal ñëw Dakar fi ko yàllay nattoo dafa agsi boo maraîcher wàcc rek. yem ci 5000 francs bu wadd ci benn apprenti mu seen benn booy buy jaay ndox ne ko booy kaay mu ñëw mu ne ko foral man suba lay tabale <laughs> booy bi for 5000 bi moom journée am neex ndax moom da doon jaay ndox ñu jox ko 5000 waa ji xëy nag commencé wër nag di dox dox dox ba tisbaar amul lu mu lekk gisul lu mu for ba tàkkusaan amul lu mu lekk gisul lu mu for mu ne am ah, ma déggoon ni Dakar da for xaalis parce que xam nga nit ñi loolu la ñuy gëmloo da nga foog ni boo rek am. ñaata chômeur ñoo nekk France ñaata africain ñoo fa tëdd amuñu dara te bu ñëwoon fii liggéey kon wërsëg yàllaa ko yore lépp mbokk yi ci raxmaan lay dellu gis nga jullit bi juboo ak sa boroom li lay jox sa borom la wërsëg yàllaa ko gàddu yow li nga gàdd mooy jaamu yàlla mu ne arrahim yàlla moomu mooy borom yërmande gu mat gi yowmal qiyaam ci ab jullit bi gëm yéefar bi tekki woon fii teddoon bëri alal am lépp lu ko yàllay faye wa qadimna ila ma amilu min amal fa jaalnahu habaan mansura kër yi mu tabaxoon états yi oto yi mu amoon noos gi mu fi nekke woon day dajaloo mu xool ko malaaka ne ci tuy yi dóor mu perte ko fan lay jëm safara yow jullit bi ñàkkoon fayda ba foog ni alalay àdduna ba fekk ko ci même créneau da mel ni moom arrahim mooy yàlla mi am yërmande gu matale gi ci jullit ñi yow qiyaam yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañu yàlla boole ci waa ajjana yàlla nañu yàlla wërsëgal ñu bokk ci ñuy dem ajjana kon arrahmaani rahim arrahmaan tur la ci turu yàlla te mooy yàlla mi borom yërmande gu mat gi sëkk di ko defal ay jaamam fii ci àdduna arrahim mooy borom yërmande gu mat sëkk di ko jefal ña ko jaamu ca àllaaxira àllaaxira ñi yàlla fay safara du soxor la leen fayee de déedéet jazaan wifaqa yéefar yi dem safara bu kenn jàpp ni yàlla dafa soxor moo tax muy lakkaate déedéet yàlla fay lay def fay ndax bi nga nekkee fii ci àdduna yéefar bi da ko doon mooy kon bu ñëwee àllaaxira da koo fay moo tax mun a jazaan wifaqan jullit bi fi nekkoon di jaamu yàlla bi mu ñëwee ajjana bi ko yàlla jox yërmande la ko ko joxee ndax deful lu ko yóbbu ajjana loolu mooy ataan xisaaba yàlla dalaa may ak xéewal yombalal mu ne alhamdulillah mbooleem xaaju cant sax na ñeel yàlla rabbil alamin yàlla moom mooy borom mbindeef yi kon firil naa la bismillah mooy maa ngi tàmbalee sama jëf ci turu yàlla arrahman yàlla mi nga xamante ni moo eyoo yërmande tey yërëm ñépp dugal ci xéewalam ci àdduna séddale ak ñépp arrahim mooy borom yërmande gu mat gi sëkk nag di ko xasale jullit ñi ah nga ne alhamdulillah cantkat sax na ñeel yàlla rabbil alamin may borom mbindeef yi kon yàlla moomu dañ koo war a sant ashukrul xaalis lillah ala lillahi diinul xaalis yàlla moom mooy borom diine ju sell kon alhamdulillah tagg la alhamdulillah yëkkati la alhamdulillah cant la ñeel yàlla beneen bi sant googu dafa bokk ci jaamu yàlla yu mag yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa an'ama allahu ala abdin fa qaal alhamdulillah illa kaana alladi ata afdala mimma axas nee na jur jaam bi duñ ko jox xéewal mu sant yàlla lu dul ñu defal ko lu gën lañ ko defaloon mbokk yi sant alhamdulillah bokk na ci sant yàlla yi gën a mag kon nit lu mu am na sant yàlla mbindeef kenn du ko sant dañuy sant diw cantug diw ga nañu ko defal diw nañu kennal diw Sénégal rek nga koy dégg ci kaw suuf Sénégal dong la am même dëkk yéefar yi du wax ni nañu kennal Jéesu yi doo ko dégg du ñu wax ni nañu kennal keneen Sénégal ci boppam ngay dégg nañu kennal diw nañu kennal Serigne Jibril nañ ko kennal Sénégal rek ngay dégg ñu naan Serigne Jibril moo ëpp malaaka doole Sénégal rek ngay dégg ñu naan Serigne Jibril benn yonent yabu ko Sénégal rek ngay dégg ñu naan sëriñ Jibril lu mu bëgg yàlla def ko yooyu yëpp bu dajaloo suñu kaw te ay kilifa diine di ko wax nit ñi gëm ko ñun lu ñu dal jaadul parce que bu fekkee kilifa diine bi xamut li ñu war a wax amul tawhid amul pas-pas amul iman foo ko waxee nag ñu mer foog ñi daam ñooy wax mais Sénégal dafa daj ci lu mel noonu bokkaale daf fee am doole daf fi am doole pour ñun wërsëg yàllaa ko yore déedéet mbindee fa ko yore jaajëfe sëriñ jibril mooy waajal sëriñ jibril kay du nit sëriñ jibril li ko yàlla defal defalu ko kenn sëriñ jibril moo mën yonent bi sëriñ jibril du moroomu nàngam yooyu ngay dégg te bu doon ñi gën a ñàkk solo ñoo koy wax Sénégal ngay dégg sëriñ bi xam na sa lépp Sénégal rek nga koy dégg moom kay moom sëriñ jibril nañ ko bàyyee suñu bopp xam na suñu démb xam suñu tey xam suñu ëllëg moom suñu lépp xam na ko kon da nga bëgg wax ne sëriñ jibril yàlla la yaay yaa xi ñemee rek nga wax ko jarul nëbbatu da gëm ni sa maam xam na népp danga gëm ni kilifa bi xam na lépp mooy saxalal ko yàlla gi nga ragal rek ndax loolu nga nëbb yàlla xam na ko kon mbokk yi nañu yëg ni cant yàlla rek lañ koy delloo cant alhamdulillah rabbil alamin yàlla moomu mooy borom mbindeef yi borom mbindeef yi na mbindeef nangu ne yàllaay boromam waaye boo demee ba bëgg a wax ni ah sëriñ diw mooy yàllay jaam ñi ah sëriñ Moussa mooy yàllay jaam ñi sëriñ Demba sëriñ Ngóor mooy yàllay jaam loolu boo demee ba gëm ko mooy gënatoo yéefar bi bal yéefar bi la gën ndax daawu ko wax waaye yow nga ñemee taxaw ne diway yàllay jaam ñi di ci bàkku nag ku wax nga saaga ko ku la ni du nii nga saaga ko parce que seen arme yépp saaga la dañuy def musiba amuñu benn tegtal seeni sëriñ amuñu dalil amuñu saaga dañuy def parce que seen xel yi jëfi dafa ci nekk du ñu nangoo yeew comment ça fait nga mën a gëm gëm boo xamante ni xale bi am sept boo ko ko waxoon mënu ko gëm yow nga nekk mag ñàkk sa xel ñu fooyee la yow ki ñuy woowee kilifa bi yaa ko tax a nekk kilifa li muy am ba tedd yaa ko ko jox yaay bàyyi sa tool bayal ko toolam bu ko defee nga jóg naan naan diw moo lu gën moo gën suñuy bàyyi kooku sa ñàkk fayda la rek mais ngëneel déedéet yàlla nee na ngëneel newul foofu inna akramakum indallahi atqaakum yàllaa ko wax yàlla nee na ki gën ci yéen du ki ngeen ni moo gën ki gën ci yéen mooy ki leen gën a ragal yàlla te ki leen gën a ragal yàlla fa yàlla waxul fi yéen de mais nga mën a taxaw jibril du suñu morom jibril nangam nangam sëriñ jibril nangam nangam moo ñu gën ba gën kënu gën loolu daf buy wax la woo ñoom ubay ibnu xalaf ñi ko daan wax démb te rusoon nañoo wax loolu kon jullit il faut nga yeew il faut ñu éveiller conscience yi bi yeewu leen jamono bi ñu jëm nag ñu bëri danañ yeew parce que dinañ gis erreur yoo xamante ni kilifa diine yi danañ ko def da nga xam ne lii da nga toog sa néeg <clears throat> da nga ne pourtant oustaz bi doon na ko ma koy saaga mais li oustaz bi wax dëgg la de <laughs> allahu yi di ngeen leen jox dëgg ndax téere yàlla la ñuy wax man shaa fal wa man shaa fal yakfur ku mu neex gëmal ku mu neex sànnil man shaa fal yu'min wa man shaa ankara bu la neexee jëlal bu la neexee bàyyil waaye nag sëñ bi koo fi def yàlla muy mbindeef nax nga ko nax nga sa bopp sëriñ bi mbindeef du am way jur xaw ma xaw ma yàlla du am way jur gis nga ngëneel ci yàlla lay dellu inna akramakum inda allahi yàlla nee na ki gën ci yéen fa man atqaakum mooy ki gën ragal yàlla kon alhamdulillah cant sax na ñeel yàlla rabbil alamin yàlla moomu mooy borom bindeef yi mbokk yi ñun ñépp yàlla lañu moom ndax ci aalam bi lañ bokk kon yàlla mooy suñu borom qul audu nga ni maa ngi muslu bi rabbin naas kon nan nga mën a amee beneen borom bu dul yàlla noo koy amee rabbu naas maliki naas ilaahi naas nga jël ko bugg koo jox beneen bindeef loolu musiba la mbokk yi borom bi ne arrahman da cee delluwaat mooy borom yërmande gu mat googu nga xamante ne ci la xéewal ak tollale jaamam yi wërsëg yépp ca la aju arrahim mu yeyalee ko muy yërmande goo xam ne da koo xaasalee jullit ñi moo tax borom bi ne yonente bi nabbi ibaadi an inni ana alxafuru rahim yàlla ne yonent bi xabaaral jaam ñi xabaar leen ne leen man may jéggalaakoon may yërëmaakoon mbokk bu sa bàkkaar bëri ba nga foog ni yàlla du la baal déedéet yàlla dina la baal barki démb am na ku may woo di jooy ma oustaz dimbale ma xettali ma mënu ko déet man moom xettali yoruma ko oustaz dama tiit oustaz dama def bàkkaar boo xam ni ma ne ko mais da ngay oustaz li ma def ndax yàlla dina ma ko baal wallahi jooy jooy jooy mbokk baa ngi Allemagne jooy ne mu oustaz rasiri ma ne ko billaahi boo tuubee yàlla baal la borom bi nee na nabbi ibaadi anni ana algafuru rahim ne yonent bi xabaaral jaam yi ne leen man maay borom jéggalaakoon maay borom yërëmaakoon tuubal sellalal dellul seytaane nax na la del si waatal bul ñàkk courage ci yàlla mbokk yi kon borom boobu mooy maaliki yawmiddiin bés pénc yàlla nee na moo ko moom kenn am fa dara ku la fa dig dara nax na la billaahi boo fi toppee nit mu ne la yowmal qiyaam maa lay ramm wala ngay way say way naan diwa ñuy ramm yowmal qiyaam diwa yi ramm jaam ñi loolu waxi waxkat la rek mais <laughs> ramm yowmal qiyaam wala yashfau indahu illa bi izni yowmal qiyaam kenn du fa ramm ku dul yàlla jox ndigal ki yàlla jox ndigal nag waxu kenn bul toog fii rek sa waay mooy ramm jaam ñi loolu loolu sa wax la rek ndax looluy dëgg déedéet sa te gis nga ramm pour mu am kii ramm yàlla da koy gërëm ba nangul ko yow mi ñuy ramm yàlla gërëm la amaan na ki nga ne day ramm mën naa ramm ndax baax na mais yow noo mel yow bàndi nga yaa fi dàq def caay-caay da ngay fecc da ngay lamb-lambi di way waaja sëriñ di way waaja di wax musiba bu nekk te ne moo may ràmm yow boo ñëwee yomal xiyaam mënul ràmm parce que sëriñ bi même bu baaxoon bay ràmm munta ràmm bokkaalekat te yow bokkaalekat nga lan moo tax nga nekk bokkaalekat yow yaa ne sëriñ moo yow yaa ne sëriñ moo yàlla yow yaa ne sëriñ diw mooy borom nangam yow yaa ne sëriñ diw mooy borom taw bi yow yaa ne sëriñ diw mooy borom muus yi mooy borom gerte loolu nga wax bu ñëwee yow mal yow kenn du la ràmm ndax sa kayit yàqu na résilier nañ sa contrat sa passeport yàqu na lan moo tax yawmal qiyaam amoo fa accès su dul jahannam yàlla nañ ci yàlla mutal kon ramm il faut kii ramm yàlla gërëm ko ki ñuy ramm yàlla gërëm ko kon maaliki yawmi diin borom bi nee na mooy borom fay ba bis pénc bis pénc yàlla rek moo fay borom fay li manil mulkul yawm nguuru yawmal qiyaam <laughs> yàlla ko moom laa ilaha illa te yawmal qiyaam kat qawluhu lxaq wa lahul mulk waxu kenn moo fay dëgg mooy waxu yàlla ndax mooy borom nguur gi mbokk yi borom bi ne inna nahnu narisu l arda wa man alayha wa ilayna yurjaun borom bi nee na mooy donn asamaan suuf ak la fa nekk te ñépp ci yàlla la ñuy dellu ah mbokk yi kon malik yawmi diin borom boobu mooy borom bis am na maliki bu dee maliki mooy buur yowmal qiyam maaliki mooy boroom yowmal qiyam yàlla moomu nag iyaaka yow daal yàlla yow rekk kott dong naabudu la ñuy jaam moo tax mbokk koo fi jaamu te yàlla musiba am na jaamu yàlla rek lañ koy defal yàlla rek lañ koy defal jaamu koo ko defal ku dul yàlla dalay nax léeg nga jaamu koo xamante ni moo la gën a gëm alal moo la gën a bëgg alal moo la gën a bëgg àdduna moo la gën a bëgg ay soxna yu rafet moo la gën a bëgg ay kër yu rafet bal li fi nekk yëpp dañ ko koy jox ci lan di wéy sama maam rek kii boo ko xaaree yowmal qiyaam musiba dal la ah. ndax fii ci àdduna li fi jekk jël na ko jox la ko yow li nga bokk moom jël na ko ba pare di la wan ne maa la gën a tedd bañ na bu bu jox la ko di def loxo bi nii bank ko dina jaay ni mooy nga sukk ci kanamam toroxal sa bopp kii la toroxal fii ci àdduna yowmal qiyaam dina la siggil loolu fan la am amul fen amul fen koo xam ne boo jàkkaarloo da nga naan groupe sukk di kat-kati boo ko defaloon yàlla kenn du la gën kon nag yëgal ne iyaaka yow daal yàlla naabudu la ñuy jaamu konoon koo jaamu ku dul yàlla musubaam ne na ñi nag dañoo foog ni jaamu mooy julli waaye boo jàppee ne lu bi wax moom ngay def donte lu yàlla teral la comme ni ma dégg dof boobu di ko wax benn waaye boo xam ñu ko wane mu wax pour moom bu fi gëree la wax fekk dof bu mag la waaw ñun fi ñu toll nii bu ñu wooroon ñu ne ñu dog leen ñu dog bu ñu nangamul dama toog ba jam mel ni mais kii nit la léeg nga gis nit kuy wax da xam ne seytaane moo ko dugg wallaahi sa jinne moo dugg ci moom di ko wax loo moo tax la mu wax ña bokk ak moom sax weddi nañ ko subhaanallah loolu kenn du ko wax julleeku woor yàlla ko moom jaamu yàlla yàllaa ko moom sëriñ bi kilifa la bu baax la bu ko jox lu ko yàlla joxoon waaye waaye bu ko dugal ni banu Israël bëggoon a dugalee yàlla yaa isa bna maryama a anta qulta linnaasi ibuduni wa ummiya ilahayni ittaxiduni ummiya ilahayni min dunillah loolu loolu nu nga ko moytu mbokk yow jullit mu ne wa iyaaka yow yàlla rek nasta'iinu la ñuy sàkku nga dimbale ndimbal yàlla rek moom moo kon nag ihdina <coughs> yàlla ñu ngi ñaan nga jubal ñu assiraata yoon wa yoon woowu ñu bëgg nag almustaqima bu ne coow lañu bëgg yoon wi jub xëj gis nga yoon woowu ñi baax ñépp moom la ñu doon wër allahu akbar yoon wu baax woowu yàlla nañ ko yàlla defal fahduhum ila siratil jahim yàlla nañ ci yàlla musal kon yoon wu jub bi ñu bëgg mooy alhamdulillahi alladi hadaana li ñu ngi sant yàlla mi teg ci yoon yi ba ñu ñëw dugg àjjana waa loolu la wax yàlla nañ ci yàlla boole <coughs> ñoo ngi ñaan nga teg ci sa yoon bu jub bi siraata alladina nga ni mooy yoonu gaañe nga xam ni an'amta alayhim xéewalal nga leen min annabiyina ci yonent yi wa shuhada ak ñi martir wa saalihin ak ña baax wa xasuna ulaayika rafiqa ànd ak ñooñu ñooy àndandoo bi rafet kon yàlla ñu ngi bëgg nga may ñu ihdina jubal ñu siraatal mustaqim yoon wu jub yoon wu jub boobu ñu ne mooy ban nga ni siraatal ladina yoonu ñi nga xam ne an'amta alayhim wa man yutii rasula faqad ataa allah ku topp muhammad yàlla neen topp nga yàlla wa man yutii illaha wa rasula fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa xasna ulaika rafiqa mbokk yàlla nañu yàlla teg ci yoon wu jub bi sirata alladina an'amta alayhim yoon nañu nga xam ne yaa leen xéewal yàlla waxuma nag yoonu gayril magdub yoonu ña nga xamante ni da leen mere te mooy al yahud yàlla da leen mere lan moo tax dañ ñi Uzayr ibnullah yahud dañ ñi Uzayr doomu yàlla la yahud dañ ñi Isa ibnullah doomu yàlla moo tax yàlla mere leen kon yàlla bu ñu def mukk mukk al maxdubu bu ñu boole te ña nga xamante ni mere nga leen wala daalliin ay yàlla bu ñu boole ak yoonu ñi nga xam ne dañoo réer ñan ñoo réer mooy nasaara nasaara dañoo réer ndax yo Isa da leen waxoon ne am na kuy ñëw sama ginnaaw Muhammad lay tudd topp leen ko ñu bañ moo tax borom bi ne falamma zaagu azaaga allahu qulubahum ba ñu jéngee yàlla jéngal seeni xol kon loolu mooy suuratul fatiha fatihatul kitaab loolu mooy saar nga ne bismillah maa ngi tàmbalee sama jëf ak samay wax ci turu yàlla arrahman yàlla mi nga xamante ni mooy borom yërmande gu mat gi nga xamante ni lépp ci la dugg mu koy defal jaamam ni fii ci yowmal qiyaama ci àdduna arrahim yàlla miy borom xéewal gu mat sëkk gi mu jagleel jullit nii mooy bismillahi rahmaani rahim nga cant sax na ñeel yàlla ñu ne ban yàlla mu ne rabbil alamin yàllaay yëpp yàllaay seen borom keneen kuñ fi wootewoo borom nax na la ku la woowee borom nax na la alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim yàlla mii borom xéewal gu matale gi nga xamante ni dajal na ak xéewalam képp kuy jaamam fii ci àdduna arrahim mooy borom wërsëg ak xéewal ak yërmande nga xam ne dana ko defal jaamam ñi mu gërëm ci yowmal qiyaama maalik yowmi diin bis pénc yàllaa ko moom keneen amu fa dara dara moo tax borom bi wax na ko wal amru yowma izin lillah yowmal qiyaama yàlla nga ni maaliki yawmi diin iyaaka naabudu yàlla yow rek laay jaamu wa iyaaka nastaini yow dong la ñuy sàkku nga dimbale ñu kon ihdina yàlla ñoo ngi ñaan nga jubal ñu siraatal mustaqim yoon wu jub bi yoon woowu la ñu bëgg a leeral ma ne siraatal lazina yoonu ñi nga xam ni an'amta alayhim xéewalal nga leen gayril maghdub waxuma yoonu ñi ñu ñi ñu ñu mere te mooy yahud wala daalin du caagin yoonu nasaara kon saaru yi mbokk yi luy metti ci sa yaram boo ko jàngee di ko ci raay di nga ci mucc fu lay metti dee fa teg sa loxo di jàng faatiha yonent bi sallallahu bu feebaroon day tàllal loxoom jàng faatiha falaqi si ëf ko ci ay sene bi bi feebaree ma gis ne mënatul wax ma di ko ko defal faatiha mbokk yi day lugg jaan faatiha day dàq jinne day dàq seytaane faatiha am na nag xadis bu daif boo xam ne nee na day dindi tooke min xaysul maanaa wér na mais xadis moom moo am daaf kon fatiha mbokk yi nañu ko gëm bu ñu ko gëmee kenn rawuñ te kat yahud bañee wuñ ummatu muhammad lu dul fatihatu kitaab ndax amuñ ko ci seen téere ñëwul ci seeni téere fatihatul kitaab saar la boo xam ne dafa résime alquran yëpp alif lam mim ba minal jinnati wan naas ñu ngi ko résumé ci fatihatul kitaab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu samedi bii di ñëw ñu ngi dugg ci suuratu saf fa la ñu war a tàmbalee comme mbokk yi dañ ñu laajoon faatihatul kitaab ñu tafsiralaat leen ko loolu mooy indi woon ñu tafsiril ko fa jazakumullah xeyran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kii nodd na ñëw noonu nuurun fi zulumaati unsi fi xalawaati يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه